alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. alhamdulilah ci alhamdulilah kàddu yi fi ngi leen di gërëm ñu ngi leen sant yéen bokk ngeen ci ñi yàlla xaroo baax bokk ngeen ci ñi yàlla dimbali yàlla ko yàlla saxal Mawlana Cheikh Ibrahim bi nga xam ne ñun moo ñu dajale fii Sénégal ba léegi amaguñ ci sens yéen bokk leen ci ñii jëriñoo wuñ ko ñii jëriñoo wuñ ko dañ ko war a jëriñee moo laa Cheikh Ibrahima ñëpp ngi kër kër yi di njëkkante di ëppalante ci moom xam des Sénégal xob ah bàyyi dafa tukki bind Maodo Sëñ Aliou Cissé leetar ne ko maa ngi fii ci diggante soppe yi ak xarit yi lu ne ci mbaax ci mbugee ci fonkeel ñi ngi moo koy defal Sénégal moom ñi ngay nelaw ba léegi na yeewu waay waaye na yeewu waay Mawlana ni mu mel ci biir na mu mel ci biti moo xorom ci ci maqaama ci de li am ci ay taalibe ci biti mu ëpp boppam Sénégal foofu kon digg benn benn bi nekk ay taalibe yi maa ngi ñaan yal nañ si yàlla boole waaye itam yal nañ ko sellal yal nañ ko rafetal Mawlana Cheikh Ibrahim mooy ki xam ni moo xoote faydu ca Kaolack gannaaw boo xamee ne bi yéen ndigal la ñor na waxtu ba jot na kooku mooy Maolana Cheikh Ibrahima mooy suñ sang mooy mooy mooy suñu sang mooy suñu yaakaar mooy suñ bunti yàlla bàyyi nit la ko xam ne yàlla ñi ko bind daf koo ko ay nit bi ñu dugg ak nga xam ne moo njëkk a ubbeeku ci réewi Awsa moom la Giriya fekk na bàyyi yàlla ku ko ko te buur ba mu dajatoon ca Makka ba mu àggee rek fekk na ba nga yox yox ba bàyyi bëggee rek buntu ba daj maam àggee Khartoum Soudan Misra waaw ba mu fa demee loolu def bàyyi njëkk ba muy dem Soudan bàyyi sëriñ bi ak bàyyi sëriñ Aliou Cissé dañoo dem xay jaar Soudan fa lañ fekk bàyyi Cheikh Omar Fouré xaw ma foofu lañ tukkee xaw ma koy aji jaar moom itam ku ñëw Abou Kasum jëni na mooy boo buy seen kër yi ba mooy seen sëriñ mu daal leen dajale laaj leen ndax maa ngi leen di laaj laaj boo xam ne ak na ngeen ma tontu yow noo tudd kii na ko Babacar laa tudd mu ne yow noo tudd kii na ko Omar laa tudd mu ne kii yow noo tudd mu ne mu ne maa ngi leen di leen tudd ci yàlla ana Ousmane ñu ne ko amal nañu Ousmane dafa gaañ mu door a ubbi loolu li may wax ne bàyyi si dafa nekk sama xel maa yor mu ne ma ko bu wax a dem génne ko génne kii këyit boo xam ne ba mu ko denc yàgg bés boobu mën na ñaar fukki at mu ne këyit gii damaa toog bés ñu ne ma pare xulafaawu larbaat ñoo ñëw sa néeg tey ñu indi ñeenti sees dama Babacar moom bi Mamara moom bi Ousmane moom bi Aliou moom ma toog suñ tudd rek Babacar ak si toog suñ tudd sëñ Tuubaa ñu ne ko man ana Ousmane ñu ne Ousmane ñëw ma ne waaw lii moom mooy lan mu ne ma dégg xaatif di wax ca ne ma xaaw laay xawmu laa yasqa bihim jalisun ñii nga tooga kuy texaa di tooga ñoom ma ko ku waxal mu ne man la Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko ñun xamoon nañu Ousmane waaye dafa gaañu boobu la mbiram bàyyi tàmbali nag di fa xëy dafa xeeñ dafay yëngatu dafay yëkkatiku loolu moo tax nag ba bàyyi demee nag fekk rek buntu ba léegi yàqu yàqu nag ba mu laajee rek buntu ba daal day jóg ay yoon yoon la fa dem waaye xam ne ci boo xam ne bii yëpp xool ko waaye Mahmoud Diop moo ko nettali mu baaxee mu ne jotaay bu xumb la ndax dañoo annoncé ci rajo Khartoum ne sëriñ bi jóge Sénégal dana waxtaan ak taalib yi dana wax ak julli yi sax lañ ko nga daal di préparé ko ay fan mu ne table ba mu daj ba bàyyi ne tëll rek tëll moo jóg rek ndax ba bàyyi toogee ne bisimilah alhamdulilah ba mu wax wasalaam ku ne xool sama ña ma ñeent ma nekk fàtte nga boobu ñëpp ñu xool bàyyi rek fàttewul ma ñeent ma ne car xool bu ko benn ma ñeent ma juróom. waaye ba mu ñëwee nekk na ci daaw ci sama kanam daanaka am na benn waaye ca téléphone naa leen doxal man xaw ma doxal am ne dama xaw waxtaan ba pare mu na ma waaw yàlla dafay teew ci pencam yàlla mu ne ko waaw. ko yéen daal moom a dana teew mu ne ko dana teew mu ne ko Cheikh Ahmed Tidiane dafay teew mu ne ko dana teew mu ne ko yow na nga ko fekkee bàyyi na ko man danaa ko fekkee mu ne dem nañ nelaw ba mu jàng rek rek ñooñu fuñ toog rek fuñ toog rek jàng fi ñaar bàyyi mu ne na leen doxal man sama doxal am lépp xat xat doom noonu lañ mën ci bàyyi Nigeria nii lañ mën ci man membre gi biir ma ba nii bañ koy jiñ te baan yëpp ci moom li dal ñu ban ci Sénégal dalu ko ndax fii koo jëm ko borom kaaw moom it jiw mën a dañ ji jiñ xit bu xut bu ca xam ne dootu bu mu def xalwa di ñaan yàlla yàlla la ko ca xalwa jooju di des yéen daal moo mag mu ne ko fekk ma kaw laa laa te bu jiyee bu ngeen gis xut fekk ma kaw moom it jiw bi dama naan la ko gën a jaaxal bi mu ñëwee bi mu ñëwee bàyyi lam fekkoon yéen a soo ca xalwa ja moom la fekk bàyyi si ma ci néegam loolu boo ko defee fekkee damay dafa doon jaaxle na ndax xamul Kaolack xamul xamul fu mu ne mu dégg ay xaso bi jàmmalante rek ana waa Kaolack ana waa Kaolack ina mu taal Kaolack mu xool ko kaay xew mu ne ko dafa am wàllu yu bëgg yàlla Kaolack moom laa si yaari coow mu ne ko ku fa bëgg a dem may def mu ne ko su fekkee da ngay dugg avion da ngay duggee fii oto dem Lagos nga jël avion yaa ngi wàcc Dakar mooy capital soo demee oto Kaolack su fekkee apapa ngay dugg da ngay dem ba tey dugg apapa wàcc Banjul boo demee nga dugg oto dem Kaolack soo demee ma ma pour moo bëgg ji bi dama ne xamul fooraay bàyyi dafa dem léegi ci bàyyi xalifa comme li mu ko daan defee bàyyi xalifa ne ko Ibrahima yow mi miin réewu jàng yi xam ne ku ñuy wax Mohamadou Kibir ma war ngaa xamante ne moom téere bii moo ko tànn bàyyi leen ko ah kooku su ko mu ne ko Mohamadou Kibir ma kenn nguuru laa wax. waaye fekk boobu ci mi ngi Medina mooy di ñëw wax bàyyi si dafa ñëw moom lay jotale bàyyi sa nga comme ci xam-xam xam nga ko ko waa jàll kooku ci kooku bàyyi ko nan ma kooku mooy Maolana Cheikh Ibrahim ñun nañ ci jàpp doy na doy na bàyyi maa la noonu la ko ñu ni yow yow la ñaam du ñaam keneen ndax duuti ko wuti yow la ñaam duuti ñaam keneen ndax duuti ko daa wax ne ñun de ñu tànnal képp koo xam ne yow moom lañ la tànnal wax dëgg yàlla kala ko tànnal na xam la bàyyi doy na nañ doy la bàyyi bàyyi doy ci nag moom la sii de Cheikh def dara lii mu wax nii daf ma xoo ebal ma gàmmu na ma soo demee caaxaan yii teew ci bokku ci nañ ci wax diw ak diw rek ñoo moo leen ñoo leen may ndim ñoo leen may ndimbal waaye yëpp ay caaxaan la dara bokk ci ñëpp rëccu nañ ko nag ndax bu ñu ñëw def te mënuñu def caaxaan yi bokk ci man la gaay taal yoo bàyyi wut ay kurus kurus benn doy na ci dégg naa ca waaye joo xam ne xaw ma ko ko gën a xam fëkku tarixa bi muy Cheikh Assane Dem gis naa ko muy wax benn góor bu sol kurus boobu sol kurus sa bëri na ko Cheikh Ahmad Tijaan nana sol course dafay tax a ñàkk su gouvernement bi xamoon ne sol course day tax a ñàkk ñii sol course yëpp dana leen wax wala soo ko mënta ñàkk a sol dugal ko ci sa biir mbubb soo ko ko solee léegi nag doo sol course da ngay ràngoo ay taalibe daal dañ leen daan ñee nag dañoo ñee ñeneen ba bu seen kawari mel noonu bu ko seen yére mel noonu ba ko course yi gàncax la taalibe laaj yow gën a service ñëpp yow gën a xam ñëpp yow gën a rafet ñëpp yow gën a jàmbaar ñëpp yow gën a baax ñëpp ñun ñuy roy ñeneen gàcce bu rëy ñun li ñu am ku ko xam da ngay may waaye doo xaaraan yi da ngay may waaye doo xaaraan li ñu gën a lor nag mooy li jaay si yu bëri Cheikh Sëñ Ousmane Ndiaye naan ñaari yëf yi. kenn waru koo laaj leneen nga ko tasare muy hadiya ak di yàq kooku mën ta lépp tasare ko da ko da ko ko wàccee foofa duñ gis mukk mu xaddam yi buy buy indi li ñu gën a sonal nag mooy leen ci sëriñ si ndaw sëriñ si ndaw yëpp de waaye leen ci ñoom ñoo tax sëriñ sëriñ si dëng ji muqaddam yu jubati yi di def li ñuy def da ngay ñëw ca kaw kenn ci ñoom mu gudd benn diir ko ba mu fees bu jox la ko enveloppe boobu te poche baa ngi la ko jëlee yow mi doomi bàyyi enveloppe boobu la waa waa ji jox ci poche baa ngi la ko jëlee yaa ko moom yaa ko moom lekkal te sant yàlla jaar fa la war a jaar buñ buñ nax suñ bopp gën di ma ne nag bàyyi gàmmu lañ gàmmu ko tàng loolu xëj bi waaye lii relation mooy gàmmu gi nga xam ne dañoo law gàmmu ci coopérative am ñeneen ñu law beneen gàmmu boo xam ne ay tabalaw lañ doon gàmmoo mi ko fa kopparo bi yëpp dëpp mu jubloo bàyyi fi mbaara mbaay mi ñu tëgg seen i tabala ba mu ñëwee toog yàlla di bële maa ngi toog mu ne sëñ Mbaye gis ngeen mu demee fam ñu daan gàmmoo am ñu daan gàmmoo ñun dañ daan gàmmu di gàmmoo te gis mel su neex na leen ñu continuer su su la neexee ma jàpp beneen bés waaye day ne ko continuer ñun luñ njëkk ci yow rek mu ne leen rek daal nga xam ne mooy yàlla dana bale yeneen sa dana bale waaye maxatu bu dana bale sa dana bal caaxaan yii ñu ko jiite nañ rek nañ waxtu ko maxatu dana ñëw sa dana bal bàyyi mu ne maxatu di jéggale sa dana bal man ko waxee am na ko jóg taaw den ma koy waxee naa ci boo xam ne waaye ba porte marché ba dalee ca kanam boppam xam ne moo ma dal xam ne fi mu jógee xam ne fi mu jógee kon maa ngi leen di wax ne ko loo bëgg ak sëriñ bi bëgg càng buñ buñ dugal kenn ñu benn sax jur ak càng ak bon lañ bëgg ndax leneen lañuy latoo ay jigéen nga leen tëj si sa kër duñ dem seen kër baay duñ dem seen kër yaay doo seen jëkkër du doo seen mbokk buñ ko teg teguñ ko fenn teguñ ko fenn njubati gi ëpp na ca kap yërmande baay yi bëri na waaye marka baay moom moo tudd baay yéen si yàlla musal nañ nañ dimbali ko nañ jiwaat maa ngi ndokkee rab société bi yëpp bàyyi 68 ngelaw li nga xam moom laa njëkk a fekk mu gën a tàng xam ne ñeefal na ma ne leen man ngeen a jaroon ndax sañ ngeen a laaj seen waaye bu leen yàq dara leen waaye wax na ma ci benn na ma coow li ngay dégg ci université ngelaw yu bëri yëpp daa leen bàyyi bokk ci. alhamdulilah rabbil alamin yàlla ngeen sax ci loolu rek wéet na ma ne yéen ñii bés boo raayee gis Sénégal nañ seen loxo rek jàmmate yàlla na ko yàlla teg seen i loxo yàlla fekk ñaan xatal ko xeeyoo yàlla na yàlla bàttal seen njàng yàlla na yàlla yéwénal seen mbir ci zaahir ak ci baatin yàlla na yàlla def ne ngeen ñi ay mag mag ñu barke mag ñu am xam-xam mag ñu jub mag yu mën a jublee mag yu bëri alal ndax lu ngeen soxla rek ci taalibe Baay dootuñ soxla leneen lu ngeen xam rek taalibe Baay yow taalibe Baay yëpp ay yokk ma damay wax ne Cissé bii moom wax dëgg yàlla gàcce nañ ci yaa alal yu bëri fa jànkati alal yu bëri jànkati faran si yéen ma ñoo leen gën a sell ñoo leen gën a bëgg baay ñoo leen gën a xam baay ñoo leen gën a neex baay ñoo leen gën a jub ñu doon way fii yëpp ay jànkati faran si ñu ngi leen dokkee ci loolu ngi leen di dokkee ci loolu tudd naa fi léegi tudd naa fi léegi garo soixante huit bàyyi garo bi nga xam ne ci la ram moomu àddina yëpp ba ñu tukki garo mooy bi benn bàyyi ñëw ci moom ñun inspecteur la ñu ne commissaire la ñëw ci bàyyi pour ñu bañ a jumaa bàyyi dafa na fa yëpp yeneen bu mu julli jumaa bàyyi wax waa ji ne ko man damaa foog a nee julli si jumaa bàyyi jumaa ji ma njëkk a ji ma fekk ci moom mu gën a gaaw ci wéram julli jumaa bi boobu ndax bàyyi dafa teel a jóg lool bi ñu nodd soxla rek bàyyi ñu jëm jumaa ji soxlaa yi ni nga ci béy bi sax xam ne sax nga bàyyi ba ne bal julli baal julli wane na fa xam-xam wane na fa fit waaye wane na fa maanu itam ñu noddal ko ni ko daan noddalee mu xutba nam daan xutbaa julli nam daan jullee dañ ne Aliou Diagne ñun soxla nañ gouvernement pour mu di ñëndil xam-xam mu di ñëndil yére pour mu dindil ay garab waaye su mbiram dina moom xam nañ ko soxlañ ci gouvernement su fekkee ne dafa am lu ñuy ragal dañuy taaj mbooloo bi benn xaaj bi jàkkaarloog noonu yi benn xaaj bi ànd ak climat xaaj bi ci biir su ko defee boo xaaj boobu jeexee ñeneen ñëw ñuy de bagage ñaar ak climat xaaj bi ci la. mu ne su fekkee su gënee métti loolu sax bés ba wax nañu ni ñu koy defee wax dëgg xam ca tëb am demee ba génn naa su yàlla jiblee ndigal yàlla war la ñu def am naa su ndigal yàlla passé nag buur. dañ ko war a topp ci ndigal su yàlla digalee dinañ déglu ko waaye gannaaw tax na ngeen dugg ci kër yi bu kenn ne ci mbedd yi dugg réew dem leen toog ci kër yi loolu muy ndigal ak moom am ah, na ñu yàlla digal moom dañu ko def war a door ak ñoom am na ci bés bu tàng sax am na ñoo aussi ba dañoo aussi ba pare bàyyi xam si gunge ko ab xaaral yi ci si kas yi ba mu dugg néegam su ko defee ñu gunge bàyyi si mu jëm néegam noonu leen daan def ah dara góor noonu Ibrahima Faye tubéy jëm sol fii la ñu ngi sax si wax nañu digal ñu dëgëral ñu wala nga defee noonu la neexee dum naa lay digal wasalaam